wajalilaahi maskani tuubaabaat misrasmi abijaayi xayri ma nabaat mbokk yi salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñoo ngi leen nuyu bu baax li ñëw ak ci bilan mois de septembre bi nga xam ne mooy li Touba ca kanam liggéey ak li mu génne njiitul su sous commission gestion des fonds Euh, ñu tàmbalee ko ci biir réew mi zone nationale Touba dugal na ci compte Touba ci kanam ci mois de septembre 73 millions 961 mille 725 francs CFA Orange Money ñi nga xam ne mooy ñi dugal ci compte Orange Money bi dugal nañ 34 millions 731 mille 293 francs CFA Wave nga xam ne application la bu bees bu ñuy envoyé xaalis dugal na 4 millions 749 mille 200 francs CFA. Orange Money ba tey ndax ñaari Orange Money la 2 millions 699 mille 200 ca diwaanu Mbacké Adja Dior Gueye ak Serigne Mama Fall soxna ñaaw Mbacké ñoom dugal nañ compte Touba Ca Kanam 1 million 40 mille francs CFA ci diwaanu Dakar Baye Serigne Bousso ak El Hadj Ndaw versé nañ ci compte Touba ci Kanam 15 millions. deux cent soixante quinze mille huit cent francs CFA ci diwaanu Mbar soxna Ndaak Sëy versé na cent treize mille francs CFA Tambacounda Serigne Adama Niass versé na un million mille francs fa ci diwaanu Diourbel soxna Ndey Ndiaye versé na un million deux cent six mille francs CFA ci diwaanu Joal Serigne Bassirou Thiaw versé na sept cent cinq mille francs CFA ci diwaanu Kédougou Serigne Modou Lo versé na sept cent trente mille francs CFA ci diwaanu Ngaye Mexe soxna Maguette Jiite ak daw Daouda Seck versé nañ deux cent dix mille francs CFA ci diwaanu Xombal soxna Xuma Touré ak Galo Dieng versé nañ trois cent seize mille francs CFA ci diwaanu Thiès Serigne mbay l'Islam Sall versé na un million neuf cent mille francs CFA. ci diwaanu Nobe ga sëriñ Ali gaje ga versé na mille francs CFA ci diwaanu Louga sëriñ Moustapha Bassirou Mbuub versé na 3 millions 26 000 francs CFA daayira Baabul Ayaadi Añam euh, versé nañ 135 000 francs CFA ci diwaanu Kébémer sëriñ Góora Sill versé na 2 millions 5 000 francs CFA ci diwaanu Kaolack sëriñ Moustapha Touré versé na 3 millions 285 000 francs CFA ci diwaanu Saint-Louis Serigne Rijal Seck soxna Rama Fall versé nañ cent 681 000 francs CFA ci diwaanu mbuur Serigne Mor Souran versé na 1 million cent mille francs CFA ci diwaanu Bambey Serigne Abdou Fall versé na cent mille francs fa ci diwaanu Goudiri Serigne Damba versé na 474 000 francs CFA ci diwaanu Kolda Serigne Moussa Sène versé na 364 mille francs fa ci diwaanu Matam Serigne Ndiaga Diouf versé na cinquante mille francs ci sànc Babé Serigne Khadim Niang versé na quatre-vingt mille sept cent francs CFA Bakel Ndiawara Serigne Cheikh Anne versé na cent cinquante mille cinq cent francs CFA diwaanu Vélingara Serigne Mbacké Guèye cent mille francs CFA ci diwaanu Fouta Mouhamadou Fadel Dia versé na cent vingt mille franc CFA. diwaanu Bokk Diaw Serigne Talla Kane versé na cent vingt mille franc CFA. ci diwaanu Daaru Moxti euh, soxna Muslim Mbàkke versé na cent cinq mille franc CFA. versement anonyme mooy ñi nga xam ne xamuñu seeni tur ñooñu versé nañ un million quatre cent vingt sept mille neuf cent trente cinq franc CFA. diwaanu Moudéri Serigne Bassirou Ndiaye versé na cent mille franc CFA. ci diwaanu Taïf Serigne Jibi Sarr versé na cinquante mille francs CFA. ci diwaanu Kafountine Serigne Jëmb Cissé versé na cent mille francs CFA. ci diwaanu Fouta Korko Jere Korko Jere Serigne Massayer na cinquante mille francs CFA. ci diwaanu Koungheul Serigne Youssou Souran versé na cinq cent mille francs CFA. ci Carrefour. Diaroumbe sëriñ Modou Makhtar mbay versé na cinquante mille francs CFA ci diwaanu Njàppandal soxna Abi fay versé na dix-neuf mille francs CFA diwaanu Ngor sëriñ Mbacké Thiam verse na cent deux mille francs CFA ci diwaanu Diawbe Baye Baara Diop versé na deux cent cinquante cinq mille francs CFA ci Santhie Daara sëriñ Dame Gueye versé na cent mille francs CFA kuréelu julli géej gi soxna Sooda Xuma versé na quatre cent cinquante mille francs CFA Musala Sëriñ Ousmane Diop versé na cent mille francs CFA Njaawali Sëriñ Mooduli versé na quarante huit mille francs CFA Njum Sëriñ Saliou Ndongo versé na cent mille francs CFA ci diwaanu Ross Béthio Sëriñ Aliou Ñing Serigne Dame Souran versé nañ cinq cent quarante cinq mille francs CFA. diwaanu Casamance Serigne Modou Khary Gueye versé na sept cent quatre vingt dix huit mille huit cent francs CFA. Daaru Salaam Mbokki Barke soxna Assou Gueye versé na cinquante mille francs CFA. zone nationale mooy biir réew mi. li ñu jot a dugal ci compte Touba Ca Kanam mi ngi toll ci 156 millions 500 559 mille 153 francs CFA. ñu ñëw ci zone Amérique diwaanu Canada Serigne Pape Amar versé na 1 million 206 mille francs CFA. réewum Brésil Serigne Cheikh Ndiaye jëwriñ versé na 826 mille francs CFA. états bu d'Amérique Serigne Souhaïbou Seck ak Serigne Massay Ndiir versé nañ 6 millions 788 mille 100 francs. boo boole zone Amérique mi ngi nekk 8 millions 820 mille 100 francs. Euh, zone Europe diwaanu Allemagne Serigne Abdou Salam Faye versé na 2 millions 275 mille 10 francs CFA. diwaanu Italie ci cordination bi. Euh, waa Italie ñoo euh, dugal quinze millions quatre cent quarante trois mille quatre cent quinze francs CFA. diwaanu France ñoom it coordination la ba tey ñoom ñu ngi versé million millions deux cent quarante et un mille deux cent quarante et un francs CFA. diwaanu Espagne Serigne Malick Dieng versé na deux millions seize mille quatre cent soixante six francs CFA. total zone Europe mi ngi nekk vingt trois millions neuf cent soixante mille cent trente deux francs CFA. bu ñu ñëwee zone Afrique. réewum Bénin Serigne Babacar Sène versé na 150 000 fa CFA réewum Mali Serigne Aliou Waaj versé na 610 000 francs CFA Afrique du Sud Serigne moor Dieng ak Afrique du Sud versé na 600 000 francs CFA Côte d'Ivoire Mor Fassa versé na 1 million 210 000 francs CFA Maroc Serigne Abdoulaye Loum versé na 372 000 francs CFA Gambie Serigne Khadim Thian versé na 1 million 94 mille francs CFA Burkina Faso Serigne Lamine Gueye versé na 1 million 693 mille 920 francs CFA Guinée Bissau Serigne Modou Atta Seck versé na 2 millions 90 mille 800 francs CFA soo boolee zone Afrique totale yi nga xam ne jot nañ ko ci weeru septembre 7 millions 820 mille 720 francs CFA total biir réew mi kon ak bitim réew mi biñ ko boolee mi ngi toll ci 197 millions 176 mille 105 francs CFA ci wàllum jaayante zone nationale septembre jaayante zone nationale 165 millions 979 mille 91 francs CFA ba tey ci wàllum jaayante jaayante réewum Uruguay Serigne Ndongo Ñang 156 mille francs CFA jaayante États-Unis Serigne Souhaïbou Seck 3 millions 194 mille 500 francs CFA boo ko boolee zone Amérique jaayante bi mi ngi dugal 3 millions trois cent cinquante mille cinq cent francs CFA. jaayante assainissement deux mille vingt zone Europe jaayante Russie assainissement cent trente mille cinq cent jaayante Espagne assainissement cent cinquante huit mille cinq cent trente francs CFA jaayante Allemagne assainissement un million six cent trente mille cinquante trois francs CFA jaayante coordination Italie cinq millions huit cent cinq mille cinq cent trente deux francs CFA France coordination. 652 505 francs CFA total nga xam ne moom la waa Europe jaayante mu ngi toll ci 8 millions 378 mille 165 francs CFA fa jaayante assainissement zone Afrique jaayante Burkina Faso assainissement 1 million 71 mille 120 francs CFA jaayante Djibouti assainissement 560 mille 643 francs CFA jaayante Guinée Bissau 124 000 francs CFA Congo Angola assainissement 200 000 francs CFA jaayante Tchad 390 000 francs CFA jaayante Maroc ci assainissement ba tey 372 000 francs CFA jaayante Tunisie ci wàllum assainissement ba tey 25 000 francs CFA jaayante Guinée équatoriale ci assainissement 2 700 000 francs CFA jaayante Afrique du Sud ci assainissement 675 000 francs CFA Njaayante Gàmbi assainissement 729 638 francs CFA zone Afrique total Jaayante septembre ñu toll ci 6 millions 847 mille 401 francs CFA boo boolee Jaayante nag total Jaayante mois de septembre ñu ngi toll ci 184 millions 555 mille 157 francs CFA. li nga xam ne mooy moom la Touba ca kanam jot ci xaalis ci njaayam carte membre ak Russie yi ak Jaayante jëm ci wàllu assainissement bi. ci weeru septembre mi ngi toll ci 381 millions 731 mille 262 francs CFA. ci wàllum frais yi li nga xam ne génn na ci compte Touba ci kanam yi Touba kanam jënd na am makkaan di terrain boo xam ne mi ngi ci arrondissement am en face ubbi ci kaw tali bi ci valeur u 130 millions francs CFA. chantier Daaru Xaddim Touba ci kanam dépensé na 283 mille francs CFA ci chantier université Cheikhoul Khadim Badja Kanam génn na ci 5 millions 200 mille francs CFA euh, commission scientifique et culturel Touba Ca Kanam jox na leen ci seen fonctionnement 3 millions 602 mille 400 francs CFA euh, commission communication seen budget ci wàllu mois de septembre tolloon ci million millions 145 mille francs CFA donc Touba Ca Kanam yi li mu doon def ànd koog waa commission sociale tolla ni 31 vingt 626 mille francs CFA total charge maanaam wàllum salaire yi ak charge fixe yi tolloo na ci 4 millions 802 mille 500 francs CFA euh, total commission membre ci wàllum euh, li nga xam ne Touba Ca Kanam itoo woon na ko ci ay sachet yoo xam ne pour collecteurs yi la ay sac ak bloc de reçu yi ñu defar ak li nga xam ne moom lañ ci financé yëpp tolloon million ci 1 million 445 mille francs CFA ci budget bi nga xam ne moom la Touba ci kanam di dégagé nga xam ne yu mënta ñàkk la te saa su ne kenn du ko man di génne ci ay compte ak signature nga xam ne Touba ci kanam day génne 500000 teg ñu financé ko ba mu jeex mu génnoon 500000 bi ñu ko génnee loolu toll na ci million 300000 francs CFA ci mois de septembre. commission environnement nga xam ne moo doon saytu wàllum yoon yi ci nawet bi moom seen na ci compte Touba ci kanam 880 millions 540 mille. 381 francs CFA loolu nag mooy tali yi nga xam ne moom la Touba Ca Kanam doon defar ci biir dëkk bi loolu la ci fare ci mois de li nga xam ne Touba Ca Kanam jot na koo financé ci commission bi ñu naan commission logistique toll na ci 36 millions 924 mille 800 francs CFA waaw ci wàllum exposition bi nga xam ne Touba Ca Kanam defoon na ko bundu kër Sëñ Abdoulahi Mbacke borom dër bi Touba Ca Kanam financé woon na ci exposition bi 8 millions francs CFA euh, ci wàllum budget commission massification Touba Ca Kanam décosow na ci deux cent mille francs CFA ci budget massification màggal ba tey Touba Ca Kanam hmm, décaissé woon na ci neuf millions cent un cinq cent francs CFA ci wàllu màggal gi commission santé euh, décaissé na toll ci quatre millions deux cent vingt cinq mille cent dix francs CFA matériaux de bureau neuf cent quatre mille six cent francs CFA li nga xam ne banques yi dañ koy dagg Touba ca kanam muy frais bancaire ci mois de septembre toll nañ ci 93 724 francs CFA. kon bu ñu xoolee ci mois de septembre Touba ca kanam li mu dugal ci kees gi mi ngi toll ci 381 millions 731 mille 262 francs CFA. waaye bu ñu xoolee Touba ca kanam ci mois de septembre dépensé na 1 milliard 130 millions 986 mille 15 francs CFA. bu ñu xoolee. total encaissement ci mois de septembre ci mois de septembre boo ko dindee ci mois ci ci décaissement yi kon compte Touba Ca Kanam day négatif 749 millions 254 mille 953 francs CFA maanaam ci gàttal Touba Ca Kanam ci mois de septembre li mu frais moo ëpp li mu dugal loolu nag li ko waral mooy màggal gi ak commission environnement yi nga xam ne soxla woon nañ ko tam mu jàmpoon ci màggal gi moo tax Touba Ca Kanam li mu dépensé moo ëpp li mu encaissé ci mois de septembre solde mois d'août Touba ci kanam mi ngi amoon un milliard huit cent cinq millions huit cent six mille sept cent cinquante deux francs CFA euh, solde mois de septembre Touba ci kanam mi ngi am fi mu toll nii ci ay keesam un milliard quatre vingt six millions cinq cent cinquante et mille sept cent quatre vingt dix neuf francs CFA. waaw kon mbokk yi liggéey Touba ci kanam ma ngoog laaj lañu man di ko def fu ñu xam. di ñaanal Cheikh Mountakha Bassirou mu yàgg fi lool te wér ba naal yi mu naal jëmee ko ci yoonu Cheikh Al Khadim mu mate ko ci jàmm ñu ngi jaajëfal nag mbokk jullit yëpp rawatina waa di waa bitim réew asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu wajalilaayi maskani tubabat misrasmi abijaayi xayri manabat